mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM tey nag li nga xam ne moom moo jëm ci émission gox bi ni ki tey dañ ko wàcce heure bi li nga xam ni moom moo jëm ci coupe euh, d'Afrique des Nations moo waral li ni mel ñu daal di koy wàccee def ko 15 heures 16 heures euh, tey nag ñu am ci gan Amina Fall nekk leader Dakar émergent nekk itam ci list bi nga xam ni Abdoulaye Diouf Sarr Benno Bokk Yaakaar jiite na ko euh, Amina Fall ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm ci ni nga nangulee invitation bi. maa ngi leen di fay euh, di leen euh, remercier aussi ci invitation bi di nuyu auditrice ak auditeur yu Rewmi FM yëpp di leen souhaiter une bonne heureuse année 2022 mhm, merci beaucoup dañ koy dooree rek ci li nga xam ni moom moo jëm ci campagne électorale bi nga xam ni door nañ ko démb seen candidat di Abdoulaye Diouf Sarr mi ngi woon ca diwaanu Parcelles Assainies war a ubbee li nga xam ne moom moo jëm ci campagne am euh, naka ngeen gisee li nga xam ne moom moo jëm ci ubbite campagne bi. merci beaucoup donc euh, comme ni ko ñëpp xamee suñu candidat di Abdoulaye Diouf Sarr di tête de de la coalition benn Bokk Yaakaar fii ci dakaar donc dafa ubbee campagne bi démb ubbeewu ko sax Parcelles ni mais fa la ko tëjee mhm. démb journée démb parce que bi mu xëyee ñu daje ci siège u APR dañoo dem Mermoz fekk fa euh, waa Mermoz saafonteeg ñoom ci caravane jóge Mermoz euh, dem Wakaam jóge Wakaam dem Ngor jóge Ngor dem Yoff jóge Yoff wàcc Cambérène bi ñu jógee Cambérène euh, ñu dem Grand Yoff dem euh, fi tamit nga xam te ne mooy Grand Médine après la ñu terminé Parcelles Assainies ci benn euh, meeting d'ouverture <laughs> meeting d'ouverture boobu nag ak li ca xew yëpp mbirum violence bi am ñoo xam ne sax amuñu temps de parole seen ak candidat Abdoulaye Diouf Sarr sept minutes la wax ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàll wi ni mel ñu seen si dafa mel ni yéen benn Bokk Yaakaar ji boo amul seen biir de toute façon xam nga ku nekk rek ak ni ngay gisee ak ni ngay xalaatee mais je pense que ni su ñu demee ci lu mel ni élection locale ki nga xam te ne mooy tête de liste communale bi su waxee tête de liste bi wax je pense que ni message bu am solo bi jàll na parce que quoi qu'on puisse dire élection yi te dafa nekk façon élection boo xam te ne profil la ñuy tànn le maire dañ koy xam ci bañ ko tànnee bokkul ak bu njëkk nga xamante ni da ngay tànn benn groupe de personne ñooñu ci seen biir tamit ñu tànnaat maire bi kon tey li nga xamante ni mooy li am solo mooy tête de liste bi nga xamante ni moo nekk Dakar muy Abdoulaye Diouf mu wax ci projet wam ñu gis profilam xam ñi koy ñi koy tànn mën a xam ki ñuy tànn kan la te je pense que ni Abdoulaye Diouf Sarr wax na beneen bi ci des mooy Parcelles Assainies ki nga xamante ni moom mooy candidat bi di Moussa Sy ñu war a xam profil xam lan la nar a indilaat waa parcelle parce que c'est pas la première fois mu nekk maire parcelle donc loolu daf ci am solo te ko nga xam te ne mooy Moussa Sy aussi wax na. mais engouement buñ ci euh, seenoon mooy maanaam jàppale Abdoulaye Diouf Sarr bi dafa mel ni feeñut bu baax tam euh, soxna si Aminata Aminata Fall. jàppale Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñi nekk ci liste bi de toute façon ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci liste Parcelles Assainies yi ñun ñëpp ñu ngi fa woon. donc man su ma jógee wakaam nekk ci biir caravane bi jóge ci caravane bi ñëw parcelle ça veut dire que ni jàppale Abdoulaye Diouf Sarr mooy jàppale suñu bopp jàppale Abdoulaye Diouf Sarr mooy jàppale coalition bi ñu bokk jàppale coalition bi ñu bokk mooy jàppale Dakar jëlee ko ci loxo yi nga xamante ni ça fait plus de dix ans defuñu dindiwuñu lu dul di xeex ak di xuloo ça fait plus de dix ans nga wax ngeen euh, war ko déjjatee ci loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kujje gi ndax yaakaar ngeen ni tey du yomb ndax am na programme bi leen di may ngir mën a gagner mairie bu dakaar xam nga suñu programme macha allah dañ ko tënk bien avant ñuy dugg sax ci campagne électorale loolu mooy wane ni. ñun fi ñu jëm daf ñoo ñor fi ñu jëm daf ñoo soxal mais fi ñu jëm tamit lu ñu gëstu la ba xam ko te fas yéene wan euh, askan bi naka lañ ko war a téye loolu moo tax foog naa ci candidat yi nga xam te ne ñooy xëccu ville de Dakar Abdoulaye Diouf Sarr moo si njëkk def programme programme boo xam te ne bu mu ko defee ba pare pour keneen defaat programme dafay jafe parce que dafa def programme tënk ko ci sans engagement dañu xam ni su joxee sans engagement pour dakaar war na mën a nekk parce que bu ñu fàtte aussi ni conseil la au niveau de la ville de Dakar musul teew itam conseil la bu musul teew bañ a teew man Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi xamee ci conseil de ville de Dakar laa xamee Abdoulaye Diouf Sarr. mu ne absentéiste dama lay wax rek man mi di waxanteeg yow je suis secrétaire élu au niveau de la ville de Dakar mais conseil yu ci bëri bu ñu koy tëgg dañ koy tëgg mercredi un ministre de la république mënul un mercredi mu bàyyi conseil des ministres ñëw conseil de la ville. est-ce que du contradictoire nekk conseiller te doo teew nga ne da nga bëgg a tey nekk maire ville bu Dakar. mais bëri na yu nga xamante ni moom teew na ci man Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi ko xamee ci biir ville de donc su fekkee koo xamante ni conseiller la bu dul teew. kon foog naa du ñu fa xamante muy benn teew bi tamit du chaque jour la ñëpp di teew conseil municipal bu ville de Dakar ñëw ñu ni les tous les cent conseillers sont présents segam maire bi sax parfois day absenté jox keneen mu remplacer ko donc loolu aussi du loo xamante ni moom la ñuy jël di ko wax li am solo mooy lépp loo xamante ni joxoon nañ ko en tant que commission pour mu liggéey ko mu ngi ci doon liggéey di leen jébbal bu ñuy dem ci débat d'orientation bi loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy xaar ci liggéeyu conseil conseiller municipal. Mm-hmm. mu liggéey ko liggéey bu am solo. dañuy dellu si waat si li ma waxoon sànq ñoo xam te ne depuis 2009 ba tey ñu ngi fi te defaguñu fi ci dakaar leen loo xam te ne Dakar sentir na ko. Dakar changé wul yow sa kanam. Dakar sentir na ko su may wax Dakar changé na dakaar li ci changé bëri na loo xam te ni son excellence le président de la république moom moo ko liggéey fii ci Dakar. ci naka tey jii suñu demee ba mbedd Dakar yi pour mu set. le président de la moom mooy jóg ni cleaning day wala mu ni ba sub set pour que dakaar waaye jóg di liggéey maire bi fi fii Soham ni teg na ay projet yu ni mel itam da nga ko koy nangul pour que dama ne su demee ba nga xam te ne moom mooy jóg xam nga mën nga teg projet mais tegin ba tëggin ba ak ña ngi koy àndal ak na nga koy defee du tax askan bi gis ci seen bopp ba mën a ànd ak ñoom tey boo xoolee dakaar guddi gi bu ñëpp tëddee waa UCG ñu ngi dugg biir Dakar di ko bale di ko setal loolu yëpp ci vision ki nga xam te ni mooy le président de la république Macky Sall la soo am wàdd ni dañ koo teg ci lu mu mënul maanaam dañoo def seen bilan wu bilan wu presque euh, dix ans parce que 2009 laay wax ba tey dañu def seen bilan boo xam te ne xam nañ ni tey jii mënutuñ taxaw ak waa dakaar wax leen li nga xam te ne moom lañ moom naka la ñu mën a foyee alalu Dakar boobu ci ay xeex parce que bu ñu fàtte Dakar dafa am budget Dakar da doon am budget presque ba 60 milliards tey jii mënoo taxaw ci Dakar nga gis kenn koo xam te ne sentir na ni nekk na ci ville boo xam te ne dafay am budget yooyu tey jii soo demee fu mel ni ville de Guédiawaye te ñun dakaar ñun ñoo leen ñoo ñoo jiitu woon ville yooyu nga dem ci ville Guédiawaye nga gis aménagement yi fa am nga gis ni ñu defaraatee ville bi da ngay xamante ni te budget Dakar multiplier na combien de fois plus de dix fois budget wu ville de Guédiawaye mais yitte bi nga xamante ne moom la maire bi di am pour collaborer ak état parce que cordon ombilical bi kenn mënu ko dagg dakaar ville la boo xamante ne dafa nekk ci biir état mënoo ne nag yow da ngay jël budget ville bi ba pare di xeex ak état loolu dafay tàddeel dakaar waaye te du la jëmale kanam nit yàgg na nekk maire de Dakar taxul mu nekk président de la République nit nekk na président de la République te nekkul maire de Dakar mais tey ji suñu jàppee ne ci dakaar rek nga mën a téye pour nekk président de la République ba tax ngay jël budget Dakar bi di ko xeexaat di indi ay marche di indi ay ay ay ay ay ay victimisation dafay dekk loo xamante ni dafay dafay dafay dafay dafay waa dakaar ñoo ciy perte loolu moo tax tey dakaar yëpp jóg loolu moo tax dakaar ñëpp tey taxaw ñoom tamit ñu ni mhm. Abdoulaye Diouf Sarr dañu njëkk ni ne Abdoulaye Diouf Sarr dakaar moo ko soxla donc foofu la affaire bi jógee waa dakaar dañu jóg ni kiikat ñun ñoo ko soxla parce que gis nañ ni defar na yoof gis nañ ni ci dëkk bi la dëkk mais kuñ naan defaroo yoof nga a ñëw jël ville bu Dakar naka nga mën a tey amee ressources yi nga xam ni mun nga ko defaree ville bu Dakar. xam nga ku toog fii ñi naan defaroo yoof mais ñi gis ni defar na yoof ñoo fi ëpp parce que ku romb yoof xam ne defar nañ yoof. soo demee yoof gis espace moo ko defar ba tey na ko état defar mais kii yore ville bi ñu xam li ñu soxal ñun en tant que askan bi na defaru. c'est-à-dire que tu sois euh, euh, euh, en en en collaboration avec l'État ñu jàppale la nga boole ko ak li nga am nga defar moo ñu gënal nga jël li ñu am ñun di ko xeexee État bu naree defar nga dem porter plainte Cour suprême yéeg wàcc ñun loolu moo arrangé tul waa Dakar te mosuñoo arrangé loolu moo tax tey ñu jóg ne Abdoulaye Dakar a ko soxla muy ADS bi nga gis ñu koy taf fu nekk ñu parewaat ni Abdoulaye dakaar a ko samp woo magi dakaar woo góor jigéen mag ndaw bépp waasoo ak fépp foo mënti nekk ne dañoo soxla un dakaar de tous et pour tous ñu ñëwaat Abdoulaye Dakar a ko samp mu ñëwaat ci ADS bi léegi nag ñu toll ci phase boo xam te ni dañu war a wane ni Abdoulaye Dakar a ko sopp mu dellusiwaat toujours ci ADS bi kon du loo xamante ni dañ ciy jiixi jaaxa wala loo xamante ni dañuy tàndu di di defantu lu ñu gëm la lu ñu yéene waa dakaar la te lu ñu bëgg a jëflanteeg waa dakaar la. loolu moo tax dina yomb non mais dara yombul dara yombul. lépp loo gisee àdduna dangay dem uti ko waxtaan ko jëflante ko mais ci kaw dal ci kaw jàmm moi j'ai toujours l'habitude de dire ni Dakar mosul am maire bu réew boo xoolee ñi nekk maire Dakar yëpp Dakar mosul am maire bu réew maire dakaar yi ñu am yëpp dañuy nekk ay maire yu ay maire yu yaru ay maire yu dal kon tey ñun suñu génération waruñoo fexe ba dakaar ñu fay joxañ maire ba naan maire bi yaruwul kon moo tax profil Abdoulaye Diouf Sarr dafa joué lu bëri ñu doole si mu nekk un maire boo xam ni dafa am expérience ba pare yeewu parce que boo xoolee cursus am fi mu jaar fépp fu mu dem fu metti la woon xam nga coude yombul ku ne xam na ni jàkkaarloo étudiants yi liggéey fa te doo am ak ñoom benn problème loolu lu jafe la mu jël coude bi coude di metti liggéey fa liggéey bu am solo defaraat cantine yi defar ko de telle sorte que euh, université dootul dafay nekk benn benn benn millier boo xam te ni ça fait ça fait ça fait plaisir nga fay doxantu ça plaisir nga fay nga fay nga fay nga fay def ay ay ay ay ay dafay neex ci kuy jàng ngay euh, endroit bi millier bi lay bi bi lay wër mu nekk millier boo xam te ni milieu bu bu rafet la. Mhm. mu jóge foofu dem ministère du tourisme mu metti boobu amatuñu woon eh, Sénégal amatul dëkk bi ku ne di wax mu relevé ko nag jóge foofu dem ministère de collectivités territoriales au moment où acte 3 de la décentralisation mi ngi ñëw. mu indi ci gàllankoor yu bari itam. da koy nangu acte mi ngi ñëw. ay doom boo la ko fa jëlee ci loxo ma ngi ci. au moment où acte 3 de la décentralisation mi ngi ñëw il fallait prendre des décisions il fallait nit yi adapter. acte trois de la décision de la décentralisation il fallait nit ñi xam ko nit ñu xàmmee ko ràññee ko peut dugal ko ci seen ci seen bopp parce que changement booy changer ay texte i faut nga am nit koo xam te ni am na dal bi am na mat bi am na sérieux bi pour mën ko exprimer dugg ci bopp sénégalais yi mu nekk fa macha allah dafa liggéey bu am solo mu jóge foofu ñu yóbbu ko ministère de la santé yàlla indiwaat nattu boo xam te nattu nationale la internationale la muy mbas mi muy mbas mi mu liggéey ci liggéey bu am solo boo xamante ni suñu demee ba ñu ni Sénégal ci mbirum riposte moom moo nekk deuxième sur le plan mondial. xam nga ni loolu. loolu loolu waaw dama ni loolu du lu ndaw même bu dee benn yoon yàlla dogal na ko ci moom. te loolu c'est important parce que nag bu ñuy xeex mbas mi moom moo nekkoon capitaine bi mu liggéey ci liggéey boo xamante ni liggéey bu dal la liggéey boo xamante ni liggéey bu am solo dañ doon toog naan ministère de la santé ku dul ku dul ku dul médecin ko jiite. mais dafa am loo xamante ne quand tu es manager ngay déglu ñëpp mu dafa am démarche boo xamante ne démarche euh, inclusive la lu muy def day waxtaan ak nit yi. ba mu indiloon ko problème lu muy def professeur Seydi li muy def hmm. day day déglu ñëpp parce que mbirum sante du mbirum médecin kese. man loolu sama sama sama gëm-gëm la ne moom moom moo ko mais man sama gëm-gëm la parce que boo ñëwee ci structure dafa am ñoo xamante ne ñoom ñooy manager am ñoo xam ni ñoom ñooy technicien de surface yi am ñoo xam ni ñoom ñooy faj i faut que ñoom ñëpp nga boole leen il faut ñoom ñëpp ñu àndandoo pour que liggéey bi mën a jaar yoon donc loolu aussi nañ ko nangul ki nga xamante ni mooy suñu candidat di Abdoulaye Diouf Sarr nangul nañ la ko itam ci biir ndakaaru gis nañ ni list yi bari na waaye liste parallèle yi itam am na fi est-ce que loolu di indi gàllankoor ci seen liste bi nga xam ni tey sa leader boobu ngay défendre di Abdoulaye Diouf Sarr du indi gàllankoor tuuti man li may wax chaque jour mooy xam nga politique démocratie la ku nekk. bu ngeen sañoon itam Mame ñaa ñëw soutenir leen. bu ñu sañoon waxuma la Mame Mbaye Niang sax mais six candidats yi nekk ville de yëpp ñëw soutenir ñu parce que xam nañ ni ñun ñoo yor bu baax bi. ah ñeneen ñi tam ñeneen ñi lan lañ ñoom. <laughs> ñun ñoo yore candidat bu baax bi ñeneen ñi ko ma ci tuddal wax la parce que. dinañ ci ñëw li nga xamante ne moom laa ci xalaat bu ngeen sañoon mu mu rejoindre. bu ñu sañoon la demee. bu ñu sañoon dañuy ànd ak dakaar yëpp sans exception parce que ñun liggéey bi ñu bëgg a liggéey bugguñu xàjj benn Dakar waa bugguñu def comme ñi nga xam te ni suñuy outil budget dinañ xam fépp fu redevable nekk ñu seet la laaj la say tax nga jox leen ko mais bu ñuy séddalee dañ naan nit yi ñëwuñu gisuñu leen bii bukki bii ñu bi sàmba lañ koy daal di séddalee moo tax bu ñu sañoon Dakar waay yëpp dañ ci dañuy bokk ci programme bi ñuy def dañuy àndandoog ñun ci sans engagement yi nga xam te ni suñu candidat jël na ko pour dakaar nga xam ne bu boobaa bu jëflanteeg Dakar jotee bu dégluwaat dakaar jotee bu laaj xalaatu waa Dakar ci li liggéey jotee du am xaaj du am seen ñun ñëpp ñooy àndandoo liggéey dama la njëkk a wax ci samay kàddu la euh, Dakar de tous et pour xam nga loolu liste parallèle Mame Mbaye Niang. c'est important du leen indil gàllankoor. liste ku mu neex tey nga ne mankat kat ah pomme moo ma gënal neew wala neew moo ma gënal pomme donc Mame Mbaye Niang su toogee ba mu jàpp ni moom dafa war a créer liste parallèle am mu créer ko. loolu on est en démocratie mënuluñ ko dara suñu sañoon nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk gis-gis bokk famille bokk euh, li nga xam te moom mooy suñu li ñu tënk yépp dañuy àndandoo ñu bokk benn liste mais list Mame Mbaye mënul euh, mënul mënul mënul mënul tere mënul tere euh, ñun suñu liste dem fi mu war a dem mënul tere ñun suñu list Dakar dakaar Dakar est-ce que tey nu mu waroon demee tey est-ce duñ ko tas. ndax tey boo ngeen àndoon tey mooy gën a doon am solo waaye le fait que moom mu démarqué wu voix yi day day dispersé wu. waa xam nga boo ngeen foogee ne voix wu Abdoulaye Diouf Sarr voix wu APR kese la foofu day am da ngeen di da ngeen di juum c'est-à-dire que Abdoulaye Diouf Sarr au-delà de l'APR dafa am ñoo xamante ne ay nitu boppam lañu. APR moom dafa minime moom. dafa am ay ñoo xam ne ay nitu boppam lañu. am ñeneen ñoo xamante ne ay organisation lañu yu nekk fii ci Dakar. ñoo xamante ni dellu dellusiwaat nañu ànd ak moom ci coalition bi am ñeneen ñoo xamante ni ay kuréelu ndakaaru lañu nga gis magi ndakaaru génn ndawi ndakaaru génn loolu tey peut-être mënal nañ ko Abdoulaye Diouf Sarr mais xëy na duñ ko mënal Mame Mbaye Niang te boo seetloo moom il parle de horizon 2035 man damay wax chaque jour ñi ñuy àndal amuñu jotu franchement di waxtaanee lu jëm ci horizon 2035 d'accord ci liste su Mbaye Niang dañuy bàyyi mhm. suñuy doom ñun bu 2035 jotee ñu jàkkaarloog Mame Mbaye Niang wax ak moom parce que boo seetee tey moom amul benn commune boo xamante ni tey moom nekk na fa candidat amul benn commune boo xam ne nekk na fa candidat. am na 19 candidats ci commune yi balaa nga naan naam nga ne fa. candidat yooyu dafa fekk ñoom ñu nekkoon seen commune def fa li ñu fay def ba ànd ak seen waa commune mu jël leen dajale leen mbubboo leen pour ñu yàqal ko mu dem ville dakaar ñun ne suñu maire suñu candidat dafa nekk ci commune am summi yëreem njëkk di xeex foofu. nekk fa candidat ànd ak ñeneen ñoo xam te ne ku ne xeex nga sa commune ba am loo fa nekk mu ànd ak ñoom nag ñu boolante loxo liggéey jëm Dakar waaye yéen seen waa commune xamoon na leen mi ne na liggéey leen ngeen dajale joxuma dem dakaar bu ko ñooñu nangoo tamit am na dakaar waaye xam na duñ ko seen candidat itam cogère bu dakaar ñu ci bari ànduñu ci doxalinam ndax dafa jàpp ni ba muy defar liste bi dafa dugg ci rukkam jël ñi nga xam ne ñoom la àndal daal di leen dugal ci liste Ousmane Ndiaye ki nga xam ne mooy cogère bu dakaar Dakar Moustapha Cissokho Parcelles Assainies ñu ci bari nee nañ du ñu ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr. mais cogère bu dakaar mais cogère bu Dakar tey jii am nañ fa seen représentante Ami Amel Top. parce que dañ jàpp ni kooku dafa ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr moo tax ñu dugal ko ci. mais responsable cogère responsable national jeunesse féminine responsable national bu jeunesse féminine. de toute façon dafa am ay responsabilités yu mag ci biir COJER national. mais ñu ne Abdoulaye Sarr ba mu doon defar liste bi itam da nga koy nangu euh, dafa jël dressé ko dugal ci ay nitam. man xam nga ba muy defar liste bi wax dëgg yàlla woowuma pour ñu defar liste bi fekkewu ma fu ñu defaree liste bi man foog naa euh, bi liste bi génnee laa xam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci liste bi mais tey jii comme ñoom ñi ñuy wax ci COJER Dakar COJER Dakar ñoom bi ñuy def euh, mouvement de soutien. à Abdoulaye Diouf Sarr avant même son excellence président Macky Sall di ko def tête de liste Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo def pourtant Ami Top moom moo leen moo jiite moo def moo def seen seen seen seen seen euh, résolution mu nekkaat tamit responsable au niveau au niveau national. Mhm. je pense que ni tey jii list ñëpp mën nañu see bokkanoo nekk. day am ñi nekk si ñeneen ñi nekk si leneen ñu àndandoo jàppale kooku te xamante ni list yamul ci ren yamul ci benn at. ñi dañuy nekk tey suba tamit euh, ñeneen neen ñeneen mën nañ duggaale cogère bu parcelle mën nañ dugg parcelle cogère bu Leadup mais sur le plan national donc dafa am ñoo xam te ne dañu am cër Abdoulaye Diouf Sarr bu bëggee nekk maire ville bu Dakar fa mu am jàppandalu 19 communes yi ngir ñu am fa résultat communes yooyu nga ko nekk fa conseiller adjointe au maire itam mm-hmm. ñuy dem ci élection yooyu yow d'accorduloo ak tête de bi nga xam ni moom lañ teg ci commune ba. waaw léegi naka ngeen fa mën a amee résultat ba Abdoulaye Diouf Sarr mën a gagné. xam lu tax d'accordoo ak maire bi ñu samp mooy Abdou euh, li xam nga dafa am loo xamante ni parfois nit kii man je me dis que ni comme ni ku nekk am nga droit on est en ku mu neex nga ànd nit ki wala nga ne mais tey jii dafa am doxalin yoo xamante ni. nit ki du ci mën a ànd ak nit. Hmm. lu tax te dafa am euh, ay jaar-jaar yoo xam ni soo ci jaar ak nit ama man tey jii du ma ñëw ni ah Abdoulaye Diouf Sarr wala son excellence le président Macky Sall bu mu tànn telle personne pour def ko tête de ñoom seen choix la ñu jël ko def ko tête de suñ ko defee tête de mu exclure carrément am a man je peux pas être deuxième adjointe au maire. de Wakam nekkoon deuxième sur notre liste ñu jàll ma nekk secrétaire élu au niveau de la ville de Dakar nga ñëwaat au niveau de Wakam nga ne da ngay defar liste mais man dooma ci boole dooma ci laaj dooma ci wax est-ce comme xam nga doo dugal sama benn nit kon tey jii su ma nekkaatee di di di di di démarché ci kooku pour mu pour mu jàll cest à yow say nit ci sa bopp sa dinañ ni lan mooy problème bi c'est-à-dire que su fekkoon simple nañu kenn si ñun ñi ñuy àndal wala ñu waxtaane ko ni ah digaloon nañ la kat nekkoon nga deuxième adjointe mais ren duñ la mën a dugal bu boobaa di nga xam mais suñ la beddee carrément woowuñu la ci réunion woowuñu la ci euh, dugal liste woowuñu la ci meeting convoqué wuñ la waxtaanook yow da ngay toog ci dem. da jël say distance. tout à fait du dem si réunion yi du ma dem si euh, meeting yi du ma dem si programme yi def foofu mais terewul nag ma sol sama dàll di campagne ci biir Wakaam pour que liste bi nga xam te ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr jiite mu am fa ndam te incha allah daf am ndam. <laughs> Amina Fall en fait suñu la déggee ngay wax dafa xaw a am divergence ci say kàddu nar a jàppale Abdoulaye Diouf Sarr boo naree jàppale Abdoulaye Diouf Sarr il faut nga jàppale maire bi nga xam ni moom lañ fa nekk moo fa nekk tête de liste au contraire kon kan nga nar a jàppale biir Wakaam ku dul. xam nga tête de bu benn Bokk Yaakaar. xam nga boo seetloo mode de vote bi. dafa changé dafa changé. justement. dafa changer da ngay voter pour maire. voter pour maire de ville voter pour maire de commune. juste. maintenant ñun fu ñu dem di campagne dañu ni Abdoulaye Diouf Sarr maire de ville voté leen Abdoulaye Diouf Sarr pour la ville loolu la ñuy campagner maintenant pour ce qui du maire moom parce que ñun dañu defoon ay groupement am ay ay ay association am ay association ba pare nekk amoon cër ci biir mairie bi am su fekkoon on a jamais été euh, élu su fekkoon on a jamais partagé de liste nga ne waaw wala su fekkoon sax ñu doxal doxalin boo xamante ne mën na gis ni dañ koy xeex ñu ne waaw mais amul dara loo xamante ne mës nañ ko voté foofu ci biir mairie bi te ñun voté wuñu si si ñu fekkee. amul benn combat boo xam te ne conseil ñu ngi ko doon combattre ci biir mairie bi ba ñu fekk ñu ci combat boobu ndax dañu ni quelque que soit alpha quel que soit le bilan le bilan du maire actuel su baaxee dañu assumer su bonee dañuy assumer su nekk ci digg bi dañuy assumer parce que nag on a été élu ensemble on a gouverné ensemble maintenant bi mu nekkee tête de benn Benno Bokk Yaakaar il a fait son choix sur d'autres yoo xamante ni jàpp na ni ñoom la war a liggéeyal au niveau local loolu nag on peut pas lui que ni dangay ngay liggéey ñun par force loolu mënuñu ko li ñu mën mooy ñu toog seetaan suñu ay militants ñu leen ah sur le plan local nii la nii nii la demee te ñoom sax xam nañ ko d'ailleurs. consigne bi lan la ko donc nii ak nii la demee consigne bi ils sont libres. ils sont vraiment libres. Mm-hmm. mais doo voteel yow. ils sont vraiment libres liste Benno Bokk Yaakaar Wakaam. xam nga vote moom dafa nekk lu secret. <laughs> donc je peux pas dire aujourd'hui li nga xam ne bu mu duggee ci mbañ gàcce. te doo campagne itam. tête de liste non je ne pas je moom que ça soit clair parce que lu leer la lu ñëpp di seen bët la du ma battre campagne pour Wakaam pour. Samba Bathily Diallo non non le fais pas. ça le fais mais lii nekk ci biir mbañ gàcce gi nag ku nekk moom bañ ne ku ne mbañ gàcce. dañuy dañuy rester euh, ci li nga xam te ne mooy norme yi. lu mhm. ñu nekk di wax si bu ñu duggee si maj gàcce lii la ñuy def wala laa wala lële. Mhm. non non non. gàllankoor mënu fa am ci boo demee def leneen voie itam dañuy disperser wu di. ok ñu avancer léegi euh, am ñu proposé li nga xam ni moom moo jëm ci charte wax mbirum violence nañ signé ngir daw li nga xam ne moo jëm ci coow yeewi askan bi na ñoom signé wuñu ko ca Wakaam gis nañ démb ba campagne bi dooree fële médina am na benn nit bu fa blessé dooraguñ sax di nga xam ni moo jëm ci violence di yee nit ñi euh, naka nga ko gisee. xam nga loolu xëy na dina am ñu mu bett mais su fekkee ñu nga xam te ne dañuy suivre actualité yi du leen bett. lu tax parce que ki nga xamante ni yow ci fitna ngay gisee sa bopp. ki nga xamante ne bu dëkk bi dalee amoo loo wax amoo loo def amuloo programme boo joxe ki nga xam ne ci xeex la lañ lay mën a dégg ki nga xamante ne ci violence rek ngay woote. yeewee askan bi coalition la kooku soo soo soo soo signé chart bi. yow ci sa bopp da ngay da ngay da nekk en désaccord ak ak moom. ñu ne charte yi tam boo koy signé gouvernement moo yor sécurité moo yor lépp euh, naka nga mën a yoree tam lépp te li nga xam ne moo jëm ci wutum jàmm ci ñoom la war a féetee. xam nga déggoo ñun la ñoom signé wuñu xam nga ñi nga xam te ni ñoo signé wul nga wax kon ça veut dire que ni ñeneen ñi signé nañu charte bi ñi nga xam ne signé muy yeewi askan bi ñoom ci xeex ci fitna. ci jaayante doole ci wax wax yu rëy ci saaga ci xastante la ñuy gisee seen bopp gis nga ñëpp dañuy def programme. gisu la ñu def programme présenté nañ seen. programme bañ nañ ko ba seen candidat Grand Yoff bañ nañ ko seen candidat Barthélemy Diaz. Barthélemy Diaz soo duggee léegi nga xool tapé bërki dem la ñëw wakaam mën naa leen jox image soo leen bëggee ni moom du def programme. benn programme la am mooy emprunt obligataire bi ñu tere woon Khalifa Sall pour mu indiwaat ko loolu moo ko tax pour muy dem nekki candidat pour mu xeex jotaat emprunt obligataire mais xam nga yàpp Dakar waay weesuwul ngay xeex emprunt obligataire boo xam te ne nga 23 milliards la te presque daanaka 3 milliards ci ay études la jëm ñu jox la budget 60 milliards pendant des années liggéeyoo ci lu kenn xam ngay def report chaque année nga def report 10 milliards xanaa boo mu mat 20 milliards yi nga doon lebi. nga ne nag loolu moo tax ngay wër di dugg ci biir ndakaar pour xeex loolu pour xeex ci vingt milliards yoo xam te ni xeex ay ay population mën cee gaañu te population yi chaque année ñu cotiser la presque cinquante milliards loolu nga foog yenn na maanaa loolu est-ce que loolu xel mën na ko nangu te chaque année nga ni ci budget bi ngeen ma jox desal naa ci dix milliards dañ koy reporter ba déwén nga ne yow tey ji loolu nga def muy sa xeex ndax xalifa Sall dañ ko tere emprunt obligataire emprunt obligataire nag du lenn lu dul boroom kër gi nekk ci këram doomam nekk ci këram dem ba jàpp ni peut-être am na 17 ans wala 18 ans xëy na mu jàpp ni mu ngi liggéey ci suuf liggéey boo xamante ni borom boutique bi yëgu ko borom boutique yi ñooy ñi nga xam te ne ñooy joxe emprunt obligataire sa doom génn dem ak boppam ba ci boutique ba ni ko dama bëgg nga lebal ma 100000 borom boutique bi ni ko ah mën naa lebal 100000 mais comme gune nga da dem tàggu sa papa na bind xam ni boo fayul mu fayal ma nga ñëw ba ci buntu kër gi di yuuxu woo Sénégal ñun la lan la nga ni sama papa moo moo bloqué sama sama borom boutique bi fay moo bëgg a xañ cent mille francs moo bëgg xam mais loolu suñu laajtee wax li xew dinañ xam ni yow mii yaay gone gu amul kilifa mais duñu xas sa papa duñu xas borom boutique bi ndax ñoom ñëpp xam nañ lan mooy rôle kilifa. amul amul loolu mu mën a jiite ville bu Dakar loolu nga bëgg a wax Barthélémy Diaz. non mais loolu parce que tey jii dañu war a xam ni ville yi Dakar doit faire partie des. villes de demain Barthélémy Diaz nag moo leen teree nelaw day yéen Benno Bokk Yaakaar. <laughs> dañu war a xam ni Dakar doit faire partie des villes de demain Barthélémy Diaz waxuma la tere nelaw rek waaye dakaar waa yëpp la war a tere nelaw parce que il y de l'image de notre capitale. dafa am solo. il va de l'image de Dakar de la représentation de notre capitale sur le plan continental et sur le plan international parce que tey jii moom li mu wane ni moom mooy preuve am mooy mën na taxaw xeex mën na saaga président de la république mën na yore ay fital mën na indi ay ay ay ay ay ay ay ay désordre ci dëkk bi bañ na ko ba sax keroog nee léegi comme nee nañ dama nitu fitna laa fan yi dinaa yaru fan yi dinaa yaru pour août mais ndox du bàyyi yoonam nit ak jikkoom noonu lay wéyee tey jii ñu jël euh, euh, euh, maire boo xamante ni du xam-xam bi du yar gi du jëfin wi nga jël ko yóbbu ko tey ñu war a toog ci conférence internationale boo xam ni tous les maires des capitales dañuy toog war waxtaan war a saytu war a négocier pour notre capitale nga yóbbu foofu foofu fetal du fa daal de foofu fettal du fa dal foofu saaga du fa dal foofu waxu reewane du fa dal foofu xam-xam expérience capacité de négociation loolu moo fay daw. loo ko mënti wax itam c'est un bon maire askanu maire moo Sacré-Cœur wax nañ ko. askan bi gis ngeen bërki démb ay vidéo nga gis mu ah, dugg ay kër benn vidéo la rek benn nit bu ñëw taxaw wax loolu mu dugg ay kër moo tax mhm. mu dugg ay kër soo am elwaade ni moo ko wax te foog naa ni moo Barthélémy ñoo dëkk benn commune te ku xam 2014 liste yi xam ni Barthélémy dafa nëbbatu ci ginnaaw Soham ah, nekkul tête de liste parce que ñoom ñoo nekkoon taxaw taxaw Dakar à nekkul tête Soham li mu wax maa ko seetaan télé mu ne dafa ñëw nëbbatu ci ginnaawam bu ñuy campagne mu naa leen juumoon naa mais dinaa rectifier ki mu làqatu woon ci ginnaawam segam tey moom la mën a taxaw défier kon nga war a xam ne moom li ko amal solo mooy bu campagne bu jot bu ne mu ut feem bu mu làqatu pour jéem a nax nax nax nax nax askan bi nit na mu ko nax benn yoon ñaari yoon mi pour nga nax ko ñetti yoon dafay jafe toog na ci émission tele mu ne bi ñuy xeex Ablaye Wade xamoon nañu li ñu ko doon xeexee dëgg la moo ne ci dëgg moom Ablaye Wade ñoo ko tey il fallait que ñu def feem noonu pour mën a yëngal askan bi nga def feem saaga président de la république koo xam ne mat na la maam nga di ko saaga uniquement pour yow mën a yëngal askan bi nga yëngal askan bi xamoo ni ay doomu jàmbur mën nañ ci gaañu parce que du ñëpp nag ñiy ñëw ci manifestation yi ñoo am possibilité am ñu leen ay agent de sécurité ne serait-ce pour yow sa envie de yëngal askan bi sa envie de déjjati pouvoir boobu nga jël wax boo xam te ne xam nga du dëgg du yoon nga toog ne danga ciy xeex est-ce que ñun tey kooku war nañ continuer wóolu ko ba naan dañ koy dénk li nga xam te ni moom mooy suñu mairie de la capitale dénk Barthélémy Dias capitale bi échec la échec bu mag la échec bu mag la boo xamante ni bis bu te xam naa ni sax Dakar waaye duñu def loolu parce que Dakar ay électeurs responsables ñoo fi nekk dakaar soo xoolee ñoom dañuy xool nit xool programme balaa ñu Dakar nee naa la mosul am maire bu réew li Dakar waa ils sont vraiment responsable du ñu ñëw rek dénk nit pour dénk nit ku ñuy dénk dinañ ko saytu dinañ ko xool bu baax dinañ xool programme am dinañ xool jaar-jaaram mm-hmm. moo tax man bu ñuy wax euh, man gëw ma sax. ni ni ni ni ni Dakar war nañ ko mën a mën a. presque lu ñuy cëral si waxtu léegi mu jeex. baax euh, Barthélémy Dias candidat la Doudou Wade candidat la Pape Diop nekkoon na fi maire Mame Mbaye itam bëgg na kandidaa la Soham ni moo fi nekkoon maire war a défendre ñooñu noonu ñëpp ay kàngaam lañ de devant Abdoulaye Diouf lu du yomb de. waaw déggoo li ma la wax warul yomb parce que dafa am loo xamante ni. nit sax warul bëgg mu yomb parce que dafa am loo xam te après dañu war a bokk ci histoire Dakar donc histoire bi bis bu ñu koy retracé wala bu ñu koy dessiné ñu xam ni affaire bi fii la jóge woon ñu jële ko fii parce que ñoom tey ñi nga xamante ni ñooy xeex te amuñu fu ñu jafandu dañuy gëmloo askan bi ni il foog ñu xeex lii pour que président Macky Sall bañ a def troisième mandat il parle déjà de troisième mandat alors que ñoom tey askan bi dañoo jóg pour xeex seen troisième mandat bi nga xam ne moo nekk actualité mooy seen troisième mandat équipe bi nga xam te ni depuis 2009 ñoo fi nekk te defuñu dara ci Dakar loolu mooy actualité tey parce que dañu nekk ci ay élection locale mais ñoom ñuy nëbb seen troisième mandat tax na ñuy dem di songi troisième mandat boo xam te ni àggaguñu fa moi je me dis que ni on a six candidats Chacun a le droit d'être candidat. Chacun a le droit de proposer aux Dakarois. Mais c'est de notre responsabilité, ñun ñi nga xam te ne jot nañu jaar ville de Dakar, d'expliquer aux Dakarois ce qui s'est passé. ci biir ville de Dakar boobu pour mën leen aider pour que ñu def benn choix boo xam te ni choix boobu mooy gën ci Dakar mais ñu am un choix boo xam te ni day tax Dakar nekk un Dakar sûr mais ñu choisir euh, euh, euh, un maire boo xam te ni dafay nekk un maire mûr muy notre candidat Abdoulaye Diouf saax <laughs> Abdoulaye Diouf Sarr candidat bu ville bu Dakar léegi euh, li nga xam ni moom moo jëm ci élection yi euh, daanaka ñu ngi koy waxtaanee fépp tey moom la ñuy waxtaanee ñenn ñi sax naan budget bi ngeen dugal ci campagne bi kenn dugalu ko ci. maanaam budget wu budget. pour def campagne budget bi am na doole ñeneen ñi ñu ngi collecte. <laughs> man de bëggoon naa xam budget bi ñaata la parce que man de maa ngi ci biir. je suis sur la liste je suis à la sixième position. Ah, bëri ngeen doole nag. mais ah budget boobu ñuy wax daal. man xëy na ñoom ñi ko xam bu ñu ko xamoon ba xaymal ma ko. Mhm. ma mën cee xam en tout cas ah budget bi accès gul si ñun de man de gisaguma budget bi man. ah gisaguma budget bi non gisaguma budget bi. <laughs> kon baax na kon baax na. gisaguma bi moom. daanaka dañuy ñëw xam nga tey la match Sénégal Sénégal ñu jeexalee ko suba lay fas yéene tàmbali li nga xam ne moom moo jëm ci tournoi bi ci CAN bi. Mhm. ñoom ak Zimbabwe ñoom ñoo war a football. Mhm. tey la match d'ouverture bi. Euh, lan ngay mën a lan ngay lan mooy say attente ci li nga xam ne moom moo jëm ci Sénégal. Sénégal war bokk ci jongante gi li nga xam ni ñu ngi koy ut boobaak léegi ñëwagul. ah man de équipe bu senegal dañ leen di ñaanal leen ñaaxaat bu baax a baax di ñaax fédération bi di ñaax ñi nga xam te ne ñoom ñooy tënk ñoom ñooy ñoom ñooy ànd ak équipe bi ñu jàppale leen bu baax a baax a baax sénégalais yépp jàppale équipe bu Sénégal ku ci nekk la nga mën ak fa nga mën ak na nga xalaatee ne mën nga ko jàppale nga jàppale ko ndax ñun dañu nekk réew boo xam te ni réewu ñaan la réewu cosaan la réewu réewu sport la donc dañuy ñaan ñëpp àndandoo jàppale ñi nga xamante ni ñooy équipe nationale ñu ñaan yàlla. Mhm. équipe nationale indil ñu coupe d'Afrique bi fii ci Sénégal. waaw parcours beeg profil bi tey lan la sur le plan professionnel. waaw man nag euh, sur le plan professionnel dama dama dama dama def une formation en tourisme et gestion hôtelière ba fu mu la am licence. Mhm. liggéey naa si tuuti après nag ma def marketing management donc maa ngi liggéey ci sama benn structure. Mhm. boo xam te dafa tudd service Amina ñuy liggéey ci wàllum euh, fourniture. de mhm. de de matériel. donc ak yeneen événementiel ak yu daal ñu ngi liggéey ndànk-ndànk. <laughs> ñu ngi ñu ngi ñu ngi liggéey ndànk-ndànk. ok euh, dans le dafa mel ni tey bon li ñu cërale presque si waxtu euh, jot na parce que kii day ñëw préparer li nga xam ne moo jëm ci match d'ouverture bi en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne wuy si nga ko ci émission bi. donc man maa gën a kontaan euh, di leen euh, remercier ci dalal bi ngeen ma dalal. Mhm. di tëjee aussi comme euh, dañuy dem ci kaan mhm. may wax ñi nga xam ne ñooy sportif yi ñuy déglu ne leen suñu kandidaa préparé na benn programme boo xam te ne mu ko tuddee Dakar Olympique. <laughs> candidat bi <laughs> mhm. donc muy Dakar boo xam te dañuy jëlee sportif yi ci ba ma gën a nekk xale. di ko topp di ko jàngal éducation sportive ba nga xam ni suy ñëw day nekk un professionnel. donc loolu moom moom tamit bokk na ci programme bi ñu yor ko. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax gërëm mbokki auditeurs yi nga xam ni ñoo ngi doon topp tey 15h jàpp tey 16 euh, li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi fu ma fi jugee rek Babacar Ndiaye ak équipe ñoom itam dinañ ñëw toog fii daal di waxtaanee li nga xam ni moom moo jëm ci ouverture Coupe d'Afrique de Nations te Sénégal nag war ci tàmbali jonganteem niki ëllëg ak Zimbabwe gërëm Léopold Mendy mi nekkoon ci euh, xarale gi beneen dimanche ak beneen invité fii ci rajo Rewmi FM